ngeen jëf euh, mbokki internet yi dalatalee nag jàmm yow mi ñuy topp saa su seen bi di Live Dakar 221 nga partagé like vidéo yu baax a baax dikk ak yow la sa gën a fes naka si euh, tey jii rek foofe sa tribunal bu Dakaru ñaari kilifa yu xamante ne si ne daati nañ leen ràññee lool fii si réewum Sénégal mu di Mansour Faye ki xam ne moo di na ture ñu war a nag lijjanti am mbir foofe sa yoon sa tribunal bu Ndakaaru si ab pelante boo xam ne eh, ki nga xam ne moo di Mansour Faye te dénkoon ko wàllum transport fii si eh, ministère ba moom nag eh, war a jëflante xam ne moo di Aminata Touré mu fi nekkoon sax ba ancien ministère bi xamante ne si ne rek am na lenn lu mu fi jiite woon si Sénégal moom rek kooki di Mansour fay parte woon pelante ki xam ne moo di Aminata Touré yaakaar na rek daf ko déformation kooke di aminatu touré yàpp ya ko jàpp na tamit kàddu yooyu ma ko wax rek nekkul xamante na si ne déformation maa ngi sa ba tax rek ñu amlante ki yoon ndax jëm si wàllu mille milliards yi si aminatu touré tudd na jëm si mansour fay beneen plante tamit boo xamante na si ne démb tamit daan na kay gis mu doon ki xamante si ne moo di capitaine touré tan dénk ko rek ñi xamante ne moo di aspect yi moom kooke di capitaine touré daate rek plante ki xam ne moom di anita job Anita Diop it ñi nga xam ñëpp si daanaka si Facebook bi rek la askan daal moom kooku di capitaine Touré daal di ko rek jébbal nga xamante ne si nag moo di ab pelante war a war kaa jébbal ab pelante moom kooku di capitaine Touré moom it yaakaar na ne Sénégal yi daas nañ koy ràññee daas nañ ke xàmmee lool jamono ji si langu ko politique yi te kenn dootu ko laam-laameeti moom kooku di capitaine Touré. leneen loo xamante ne si na démb nemmeeku nan ko mu doon ab arrestation xamante ne si na moo di Ahmed Suzanne Camara démb daati na gis na rek des ka daati woolu procureur mu ëtt sisiru daat kay woolu moom kooke di Ahmed Suzanne Camara ginnaaw rek ba mu yëkkatee ay kàddu ba fa feel site Seneweb moom kooke di Ahmed Suzanne Camara jëmale ko si njiitu mu réew mi ak nga xamante ne si na moo di euh, premier ministre bi Ousmane Sonko tax rek euh, procureur daati ëtt sisiru ba tax na rek wàllum déformation lan jàpp na rek euh, moom la wax patax na rek ñu daat ke say wolu mom ko kee ahmed soussane camara yooyu la mbir nag yëpp rek mën na daan leen ko toppal ba xam rek ana mbir yooyu fan lay wujjee jëm si làng ko politique yi ndax ne mekko na na jamono ji rek wàllu ngoon daat na si eh, bëri lool